li ñuy bett sax du sax loi bi mais jàpp bi nit ñi jàpp ne ñun waa taxawu Sénégal mën nañ nekk ci ay combine wala ci ay deal nekkuñu ci combine nekkuñu ci deal ñun ay républicain lañu fi ñu jaar yëpp wan nañu que réew mi bu élection ñëwee dañu war a waxtaan waxtaan nañ waxtaan bu nga xamante ne jàpp nañu li ñu war a def ci parrainage bi ak ci candidature yi moo war jëmale réew mi kanam mais bu président indee texte mel nii xaw nañu bett te ñun nanguwuñ ko incha allah bu ñu demee commission daañu def ay amendement bu ñu ko nangoo xayruñ bu ñu ko nanguwul quel que soit le format bu ñu proposé ce format d'article unique taxawu Sénégal va voter contre l'article 87 et ça c'est une position qu'on a depuis quelques jours. ñun de li ñu jàpp te nangul ko président mooy taxawaay bu mu am ne moom bokkatu si élection présidentielle ndax moom nee na dafa am code d'honneur moom gor la mais ku jàpp ni gor nga jàppal sa nawle yëpp ay gor lañu ni mu nekkee gor noonu lañu nekkee ay gor bu waxee jëmale si askan bi ñu wax jëmale si askan bi. li ñu jàpp mooy président Macky Sall naam mën nañ dégg li ñuy wax ne président de la république comme parlement bi mën na def motion de censure président la république bu amee njàqare war na mën a dissoudre le parlement mën nañ ko dégg président mën na jox ne man maa waroon président bi ba fast track parce que gis naa ni que réew mi entre projet bi ak réalisation bi mën na nekk ay lépp lu mu jàpp si mandat mu ne doxalu réew mi bu ñu ko waxee ñu dégg ko ndax fi ñu jëm moom bokkul mais dañ jàpp ne Sénégal bi ñu jëm comme moom bokkul na bàyyi sénégalais ñu dem ci élection tànn seen président te ñëpp bokk loolu lañ xalaat mais bu ñu ca jógee aussi mu bàyyi ñu ñun en toute responsabilité ñu waxtaan ànd xam li ñu war def parce que réew mi li mu soxla ñëpp xam nañ ko te ci la ñu war a jublu. waaw euh, ñun mën nañ minoritaire fii mais tey sénégalais yi nekk si biti ñoo majoritaire sénégalais yi li ñu doon bëgg wax nañ ko au euh, euh, ci élection législative yi wax nañ ko ci élection locale yi. et jàpp naa ne bëgg-bëgg changement boobu moo tax président la bi am conscience ne bu demee candidat du baax ci moom kon ñun amuñu fi logique minoritaire ou pas fu mu toll nii président Macky Sall bokku ci élection yi ñun acte bu ñu teg. sénégalais la ñu waxal et li ñu bëgg sénégalais yi xam mooy que yeewi askan bi en tant que groupe parlementaire parce que nag dama bëgg ñi nga xam ne que député yeewi askan bi dañu waxtaan suñu biir ñu ne nag ak lu mënti doon ñun ay député yeewi askan bi la ñu lu mu mënti xew ci leader yi ñun impacté wuñu kon nag yeewi askan bi ak taxawu Sénégal bi ci bokk loi bi bu ñëwee bu dee article unique la ak lu mu mën a làmboo ak lu mu def on votera conte parce que on est contre la suppression de l'Assemblée war ñu de bu jàpp li Khalifa def Khalifa ba mu a jël ay responsabilités dem dialogue dafa jël ay responsabilités dem dialogue bu amee leneen lu muy def dina am fullaak fayda jàkkaarloog askan bi fi mu toll nii du diggante ñun Khalifa ak askan bi diggante Macky la ak askan bi gor ca wax ja dafa newoon bokkatul na bàyyi réew mi doxal nu mu ko doxee